Géewul asalaamaaleykum mbokki Sénégal. waxtaan na may la ñaay jéggal euh, amata téléphone ku ni ne ñaareel tey euh, mu am xew-xew bu am solo bu fi am. xew-xew bu fi am. ay waay nga ñaaree nga ñaari Barza Ndiaye Barza maamu bi. il euh, faut mën a dëkk Sénégal rek tey daje nga fii ci Loyeen. délégation bi ñuy dugg ci. وأخذنا بفضل بارك ليس له Assalamualaikum, bagi TV Assalamualaikum bagi Loyenne ingin dan di ziare di di leen baalu ak di rafetlu ndaje mi di famille Gaye di woote nañ kami fi si dëkk bi kami daje boo xam ni kami mbokk la nga kami ni yàlla def na nag ñu féete si wàllu sante bi am suñuy mbokk yoo xam ne vraiment jàppale nañu si def fi benn antenne médicale antenne médicale bi nag liy sabab bi mooy ñëpp gis nañ ni fi mu li nga xam ne moo rëmbee réew mi ñu naan ko coronavirus bi nga xam ni vraiment réew mi te gis nañ ay cas yoo xam ne am na fii ci Sénégal loolu moo gën a waral nag ñu def antenne bi nga xam ni gën a def benn prévention boo xam ni day jëm ci maladie bi ak yeneen feebar yoo xam ni patients yi daañ ko indi ci loolu la ñuy gën a insister di sàkku tam ci set yi ci loolu nag la ñuy remercier vraiment ñi nga xam ne jàpp nañ si antenne bi ba mën a taxaw ki si njëkk mooy monsieur le maire di Maodo Diop vraiment ñu ngi koy remercier bu baax di ko ñaanal nga xam ni lépp mbébét bu mu si commune bi suñu borom defal ko ko kàttanal ko defal ko promo tam nga xam ni lépp lu mu yéene si commune bi suñu defal na ko parce que lii nii bu mënee taxaw vraiment loxaam a ngi si dugal na ci loxaam bu baax a baax. en personne maa ngi koy remercier baax mais waa dëkk bi waa famille bi ñëpp a ngi koy remercier ci geste bu rafet bi nga xam ne moom moo ko def ndax valeur médicament yi nga xam ne gis ngeen moom moo ko engagé wu def ko ci ses propres moyens nag parce que xam nañ ne commune u Géoul nekkul commune boo xam ne bu bari doole la bi biñ ko ko demee sollicité ay fan yu néew moo desoon ci ci ndaje bi mais dafa jël initiative boppam jël si doole boppam ñëw jàppalee ko waa Loyal jàppalee ko famille bi lool nak vraiment ñu ko ci remercier bu baax di si remercier en plus docteur Thiaw le médecin chef du centre de santé de Guéou vraiment moom it jàpp na si si personnel jàpp na si aussi si dooley Bopam. moom it dañ koy remercier bu baax bu si jógee aussi di remercier équipe bi nga xam ne ñu ngi ki ko jiite di docteur Atou Niang vraiment di suñ xarit ñi bokk di liggéey ci sàmm sant bi géewul bi mu ñëw am volonté vraiment oyof baax yaatu ñëw bàyyi tam yëpp ñëw ànd ak équipe am ñëw jàppale ñu si liggéey bi parce que xam nañ ne tey jii kenn amul jot parce que mënoon na ne damay dem weekend mënoon na am ay empêchement yu lu bëri amoon yépp mu bàyyi ko vraiment ngir jàppale taxawaay boobu tam ñu ngi ko si ñaanal suñu borom jàppale ko defal ko promo bi nga xam promo bo xam ni bu bu dégg dayoo lépp loo xam ni ne na ko si jullit yi yéene na ko ci askan bi suñu borom defal ko ko ndaw la mais ndaw bu engagé wu la kon ñu ngi ñaanal mu andak ak aussi maam Awa dir nga xam ni doomu dëkk bi la moom ba pare nek ci dëkk bi moom vraiment liñ ko ko waxee moom it mu rafetlu ko trop ñew japp ci liggéey bi ak nday mbagan deng moom aussi nek ci dëkk bi kon nag vraiment ñom ñëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñaanal bu baaxa baax di ñaan suñu borom gën leen jappandal gis nañ taxaway bi rafet na tàng na condition bi difficile na mais malgré tout ñu ngi gérer patient yi kon nak ñi ngi ñaan di delu di ñaanat nak bi nga xamni moy maladie bi nga xamni bi ngi daw ci aduna sun borom def ci tawfeex defal ñu ci ak jàppandal boo xam ni kenn bañ ci lor gaay yi nga xamni ne nañ ci tax ñepp wër tam yam fofu ñu ngi koy ñaan ci aduna ñu ngi koy ñaan ci barke kaamil yi nga xamni ni nañ ko fi tam di leen remercier ndax lii acte bu rafet la ndax ku ko def ku ko tudd la la bëgg ndax occasion bii ngeen ma may vraiment maa ngi leen ci remercier bu baax a baax di leen ñaanal tam yàlla dimbali leen tam ba ngeen am télé loolu lañ leen di ñaanal vraiment seen liggéey tam ñu koy rafetlu kon ñi ngi ñaanal ñëpp ñaani tam képp ku fi ñëw indi fi jàngoro yàlla ko suñu borom saafara ñu ngi remercier ñëpp merci. léegi ñoo ngi fii ci Ndoyeen Sylla janok ki nga xam ne mooy Balla Balla Gaye nga xam ne moom it dëkk bi muy dëkk cosaanam salaamaaleykum Balla waaleykum salaam teebal baa lan nga bi tey nan dem nan dem nan delloo suñu xel te xam ne man ay jullit lañ yéen ñi yaakaar Serigne Touba ak ñi yaakaar Cheikh Ibra Fall ak Serigne Ibra Fall ak képp koo xam ne ñu sant si la rek mi ngi tey fii ci Loyeen lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo jeunes yi nga xam ne ñoo nekk fii kon li nga xam ne moom la ñuy nekk ci réew bi kilifa yooyu yàlla nañu ne ko sàmmal ba nga xam ne kenn ku nekk ñun ñii teratu ko ci def teratu ko ci def man nag maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp nag. Ah, lan ngay tëjee. lan la yàlla def yàlla def na nag man maa jiitu dëkk ñu yàlla ñu koy gën di mën yàlla jàppale ñu ba ñu booloo war naa ko def doon benn daal loolu loolu a baax a ñu ngi ci Loyenne ki nga xam ne ñu nga taxaw moom nag yaakaar naa ne euh, neex na dafa ñaanoon yàlla fekk ci bisu Loyenne bi dëkk fii ci waaye yàlla dogal day jubóo nekk ci wàllu waañ bi bii ñu ngi lay nuyu. ñu woo ko ndaje mu cap mu cap comme sànq ni président wootee ndaje mu cap cappale ba moom itam ñu woo ko ci ndaje mu cap te bu sañoon tey ji teew waaye nag te muy teew na ngay xool Cheikh Bourane ci seen biir ndax kii fépp sama ndeyjoor Cheikh Mohamed Fadal Seck di magu Cheikh Ngourane di doomu xalifu Cheikh Dey Thiaw ànd ak délégation yëpp yëpp comme guddi na sa orateur yi bari na daanaka boo tuddee suukar xam ni neex na waaye daal waa loolu na xam ne daal ku dégg bëccëg suba ngoon Cheikh Ngourane ngi di bàyyi xel mi ngi ñaan yàlla ngeen jàppale ko ci zaahir ak ci baatu allahuma moom bu ñu wax ci jumaa ji yal na ko yàlla nangu bi jaay si ñun coronavirus bi ñuy wax ab balaa la yal na nu yàlla musal ci musiba ak balaa balaa boobu yal na ko yàlla yemale fii dootu am dal kenn ci àdduna rawatina na ci nag suñu réew mi loolu daal ci gàttal wax ji gudd gàtt ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp yal nañ ko fekk ay déwén déwén déwén ci ay suñuy jëm fii ñu toog nii war a def jóge ko di dem yeneen dëkk dëkk yu bari ba kon bi ñu ànd ak yéen toog ba bi sedd ko waaye fii dafa am sax délégation xam ñu nga jaar boori Jolof yéen ñi dem beneen ñaar ay jëlu mëroon yooyu ndax suñ ko invité bari na waaye daal ni ngeen xam ne daal bu ngeen toogee tam ni ngeen xam ne chaise yi rek ñi ñëwaloon Cheikh de Thialo Cheikh Birahim Seck ñoo ngi toog ngeen di xool ñu ànd ak bis bi di ñaan ci barke Cheikh de Thialo yal nañ ko teewe ay déwén déwén yu bari di jaay suñu góor yàlla yokk leen eh, yóbbu affaire bi ci kaw ndax njariñ la te suñu njariñ la ñu tamit. jërëjëf ñun ci la ñu jàllale. yi rafet na buñ sañoon àdduna bi yëpp di ci. kon yéen ñu ngi leen di masawu toog bu baax baax. te di wax ngeen ziara ñu Cheikh bu baax baax kàddu ngeen dox yëpp. ba léegi ñu ngi fii ci euh, Loyenne Sylla ki nga xam ne Touba Loyenne Sylla ki nga xam ne ñu ngi daanoo moom mooy Soxna Khady Gaye di ta di bay faalu Loyel sila, mom lañ janoon ni soxna xali nuyu nañ la ma ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di leen balwaq di leen baal di leen ñaanal jam yal nañ boole jam fi nak looyeen la ablay gay mam ablay gay moko santion ak sunu mam Maysa Faaji ma njéeme maar ñu top ko di top buma topi ko topé day goudi ñu ne ci ne ci ci ba def koon ay jang fi lañ ko daan bass ñu demoon bam yag ñu tégaat ko fi suuf né dañuy tabax juma biñ tabaxé juma ji ba ag ñu wax goné né dajé ndax dañu bëgg dajalé famille bi boole famille bi ñuy daje li di safo te lépp di bëgg mbokk ñu nekk ci ba jantub tey ji tey sax defoon nañ ne du ami nit waaye moom kenn mënut a wax lépp waaw famille bi daje rek. Mm. bu nëgë ni déwén dañuy ñaan yàlla di ko fekkee di ko tal. waaw xanaa fenn xamuñu fenn loolu fii rek lañ bëgg. waaw ñu gis euh, jigéen ñi nga xam ne ñi nga sant Guèye ne ci Sénégal képp foo xam ne jigéen a nga fa rek tey teew nga fii ci Loyeen lan ngay wax ñoo ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Loyeen xanaa di leen ñaanal yàlla jàmm gën a takku nag nan ko waajal suba ku ñibbi sa kër da nga fas yéenee waaj pour déwén nga mën koo teel a pat ndax boo fekkee yow waajaloo ko tayee suba rek da Mm. waaw. lan nga sa mbokk Ndoumbé nga xam ne ñoo la fekk fii tey jii ci loolu. tubaarkàlla Seynabou Gaye mooy njiital jigéen Seynabou mooy njiit li réunion ba am moom ñooy ànd ñëw fii mm. réunion bi tas nu dem ñibbi ba ni ñuy amee mm. dimanche lañ fi mujj réunion waaw muy dajale cotisation yi di ma ko dénk man li ma la wax rek may bàyyi fa waaw Nabou Gaye Seynabou Gaye moom mooy président bu jigéen ñi waaw Ah, yan kàddu nga ma di ko ñaanal yàlla jàmm rek di ko ñaanal ñëpp nag waaye yal nañ yàlla boole jàmm ak xéewal hmm. sutura a teraanga waaw mun nag fii rek lan bëgg fii rek lan am waaw te moom la ne am ba banee deer wasalaam waaw ba léegi ñu ngi fii ci Loyne Sylla ñi janoog ki nga xam ne mooy coordinateur bi di Fallou gay nga muy koo xam ni ku am la ci lépp loo xam ne rek ci ngi yëngu ci wàllu uh, Loyeen ñu gis ko muy yëngu ci lépp loo xam ne développement Loyeen rek da ci daal di sonn da ci yëngu di ci doxal ñu dajak moom ñu janoog moom tey jii Fall ñu ngi lay nuyu wa TV Géewa ñu ngi lay nuyu de len ziar de len bal ak di len ko bal te di ñaan yàlla jàmm xewal nak yalla defal wa di len ziar te di len nuyu te di len ñaan yalla jamm xewal di rafal tim wax deug yalla seen taxaway amna solo ndax li mom lu reey la si ñun man bima len gisse man vraiment dama kontaan bon wana ngeen ci ngeen bok malgré yi ngi def seen liguey mais relation tim lolu suñu borom dogal te lolu mom saxal ngeen ko ndax bu leen neexoon mën ngeen ah bala ñëw ñëw loo leen lii wala suuse wala yii mais yëpp xoolu leen ko kon bi ma leen gisee rek dama kontaan dara xewagul kon bu ngeen ñëwee fii ñëw ñu war a présenté def suñu dajee famille quatrième édition kon dana baat ñu def si ay tuuti leeral rek leeral ga tamit li ko waral rek kon li ma ko waxoon fee laa koy waxee rek daanaka dafa nekk famille fami nag moom si côté bu nekk mën koo bokkee mën nga bokkee si maam wala si papa wala si yaay kon nag famille loolu moo tax muy yaatu bi loolu amee tamit ah dañ xalaatoon parce que loo gis si kër àdduna moom mbooloo mooy doole te euh, initiative bi nekkul loo xam ne du euh, dajaloo ñëw lekk ku nekk dem déedéet parce que bu nekkoon ku nekk mën nga toog sa kër lekk mais initiative bi benn mooy développement Loyeen wax dañ ko si sàkku parce que dëkk bi tamit tey jii chaque jour dañu gis ne bii mooy quatrième édition mais depuis boobu ñu fi changement. parce que boobu léegi da nga fi daan gis koo xam ne tabaxul woon léegi mi ngi tabax koo gisoon mu yor sàkket léegi mi ngi miire wala bu ñëwee yaa ngi peinture sa kër ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon yooyu développement looy na beneen bis de l'acte mooy bon suñu maam yi dañ nekkoon doon liggéey bon bokkoon ñi nekk ay doom baay ñi nekk ay mag yi dem ñun tout tànk nag ñu ñëw di jéem a dox loolu dox googu comme fekkewun li ñu mën nag mooy di organiser lii di di laaj kan mooy suñu maam fan la nekkoon lu mu fi doon def loolu moo tax tamit lii am si ba si lii amee mbokk gi léegi jamono ji xat na te ku nekk yaa ngi tasaaroo mais yooyu yëpp ti moo tax bu ñu dajaloo tey jii ku nekk dana xam ne ah kii de kii mooy sa papa kii mooy sa maam kii mooy sa kii bu demee ba famille bi suuree tey jii li fi am si sëy rek euh, si diggante kenn xamul lu mu toll te loolu lépp ndaje mee ko indi kon loolu lépp tim bu amee rek jàpp naa ne képp kuy doomu famille ngeen rek comme li ma waxoon sànq si rajo bi rek ñun ñëpp dañ si war a suudeewu jàpp si parce que yéen mii diggante ngu mbaag leen soriwul

ndax tay jii japp nan ku fi do ñew di fi dé sax da nga né na dem guddé ndax jaram na mako kon nak lool yaaka naa am nañ si feete bu rëy wa Fall ñu dégg nga wax comme feebar bi nga xamné yaaka na mi ngi lëmbe Sénégal ku nekk nga ci wax yan matu matukaay ngeen jëlon tay jii yi nga xamné pour lo karangé nit ñi wa lool timit ko euh, dëgg alpha loolu tamit dëgg yàlla xëy na moyens yi mais wajal nañ ko ndax tamit dañu nekk ci lo xam bi dañu wara participer ci développement li nga xam ne moy développement Sénégal parce que lool bimu amé timit ñepp même bu lo dalul ndax Sénégal kum dar dal na sa mbokk kon tey ji bi mu amee tamit ñun ñoo xam ne tey ji dañu am ndaje moo xam ne dañuy woo suñuy mbokk ñu fi ñëw mm. ah, xam loo tax tamit ñu amoon suñuy rakk suñuy doom ku mel ne docteur Guèye yàlla dogal euh, domaine boobu ki ñu waxtaan seeg moom taxawal ak moom ba mu taxaw tamit mu taxaw tamit tey taxawal fii ndax lu mu néew ne tey bi ma ko laajee nee nañ ma fi cent personnes yoo xamee ni consulté leen gratuite jox leen ay médicaments gratuite kon loolu tey jii même bu fekkoon ndaje mi amul lool rek tey jii yaakaar naa ne point marqué la parce que pour dire loolu wax dëgg yàlla mi ngi fi doog yàlla tamit incha allah lii du fi yem te loolu tamit bu ñu demee ba man ko tamit wax dëgg yàlla dañuy remercier monsieur le maire muy Maodo Diop mu nekk maire commune Ngourane moo ñu appuyé cent pour cent tey jii bu ko mënee moom la wax dëgg yàlla loolu ñu si remercier bu baax si taxawaay bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a tey jii bis bi médecins yi nga xam ne ñoo àndaloon ñoom góoti nekk géew tamit ñu leen remercier bu baax di remercier tamit képp koo xamante ni teg nga sa tànk daal di wax na daal vraiment moom kontaan nañ daal édition bi daal vraiment quatrième édition bi moom dañuy ñaan yàlla daal déwén gën a raw rek mais bii moom kontaan nañ si quoi. waaw Fall lan yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Loyenne. waaw jeunes yi xanaa gën ñu gën a takku rek parce que ñun moom avantage bi tamit jeunes yi demoon nañ ba wut sax loo xam ne nii mooy kayitu euh, kayitu nañ koy waxee récépissé développement de Loyenne loolu yaakaar naa ne yàggoon na fa te li ma waxoon sànq rek Loyenne moom bu ñu sumbee rek mu

parce que xam nga ne liggéeyu jigéen bëgg a boole sa kër bëgg a boole fii ak yeneen ak yeneen xam nga nekk si biir loolu metti na mais kon lu si mënti am rek ñoom dañ leen di remercier di leen ñaanal yàlla tamit lépp luñ si sàkku si xéewal suñ borom defal leen ko ndax fi yaakaar naan xéew fi sàkku du xaalis du lekk du dara xéew nañ fi sàkku kon daal ñu ngi leen di ñoom jigéen ñi yàlla gën leen taxaw gën leen a sàmm ba lépp luñ fi sàkku suñ borom defal sama xol sedd na si yéen bi ma leen gisee rek parce que tamit ñoo bokk nekk géewul xamante nañ relation bi am na mais bi ma leen gisee man sama xol dafa sedd vraiment pour dire la vérité xanaa yéen di leen ñaanal rek seen télé bi dem ba lu ngeen si seen si xewli yàlla dafa dem yéen tamit lépp lu ngeen si sàkku moom yéen na ko xam suñu borom moom xam dañ ko boole si bis bi parce que yaakaar naa bis ba ñu wàccee lu mat ay téeméeri kaamil ñaan fi ay jullit tase fi ah, tënk rek borom mën na koo nangu kon nag yéen bépp aajo bu ngeen si am ak lépp lu ngeen bëgg si réew seen métier mi yal na ko suñu borom defal di waxan daal wax dëgg yàlla kontaan nañ si yéen yal na leen yàlla jàppale waaw jërëjëf jërëjëf sëñ ah, jërëjëf sëñ Fallou ngeen dégg kaddu yooyu Fallou nga xam ne moom mooy coordinateur bi nga xam ne moo nekk Loyenne kaddu yu am solo yooyu mu wax kon lii lañ leen jële woon tey fii nga xam ne mooy ci si Silla ñu leen jox dig daje nag ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf